dañoo war a dem def nii diw ndax démb ñoom ñoo fi woon noonu lañ leen daan def non loolu doxalul réew xam lu mu koy indee non non la ñuy indil suñu biir te di nga taal benn safara mu nekk sa suufu tànk safara boobu mujj lakk loo xamante ni yow sax si sa bopp si nga si nga bokkoon moo tax na senegale yi moytu bu baax ñu ngi taal feu boo xamante ni safara boo xamante ni bu xësee ba tàq ci réew mi jàmm ji ñu am nii foo romb ñu jël xar yi teg gars yi di teg seen ay xasida ñii di teg seen ay musique ñu ne ci jàmm soo waree xëy nga génn ndànk xëy ci jàmm wàcc ci jàmm dina fi deñ ndax lii nii di commencé ci réseau sociaux yi geerante bi ñi foral Macky Sall di guerre waa Sonko ñi foral Sonko di guerre waa APR mu nekk guerre boo xamante ni yaa ngi koy gis si réseaux sociaux yi TikTok beeg yëpp saagante ndey bi soo commentaire lu positif si Macky Sall ñu saaga la ndey nga wax lu positif ci Ousmane Sonko ñu tagg la ngelawaay sénégalais yi élection ba mu jeexee ak léegi ça fait deux mois ñii di soog a falu ba ñu falee ak léegi ça toujours su deux mois nañ leen ñaanal yàlla réussir seen mission bii ñu am si Sénégal ñu am ko mais famille di wax nii naan ba muy dem Sénégal ak ku góor ki naan ko dafa am ay gel Amérique ak yow lu mu ci xam li ngay avancé loo ci xam lu la ci wóor dafa am yoo xamante ni booy wax waxal lu la wóor defal lu la wóor boo tëddee da ngay nelaw moo tax ma préciser la ne la kii di wax yàgg naa wax ay jàpp nañu diw mu ngi ne ñu ngi yóbbu maanaam boo ko daan déglu da ngay jàpp ne Sénégal tàkk na. waaw moo tax nag genre yi dama bëgg sénégalais yi ñu xam si ñoom. am na ñoo xamante ni ñu lu dul ay vie nit ñi di like seen ay live moo tax ñiy dugg ci yenn détails yi di wax la waay président Bassirou jamaar jaxaar Faye ak son premier ministre ci Ousmane Sonko na lay gars yi ñaanal mission bi ñu réussir que ñoom Macky Sall dem nañ seen way jeex na. léegi nag nañ liggéey Sénégal ñu am ci jàmm mais chaque jour Sénégal wax te ñii di wax yëpp ñu si ëpp xamuñu si li ñuy wax daara lu dul di wut ay vie rek ñi ñii jaruñu sax di seetaan. Mhm. franchement. Euh, dinaa joxe benn information boo xam ne dafa concerné. Euh, coowal Mercedes bi ñu doon tuumal Awa baaba cam ak euh, ki nga xam ne moom mooy waa senecartour ba ñuy wax ne waa senecartour ñooy porter plainte Awa Baba Thiam mais au contraire pour euh, dëgg ji fa mu feeñee mooy Awa Baba Thiam ci boppam moo lu ki nga xam ne moom mooy employé boobee nekkoon foofu doon ko tuumal muy Saliou Sarr mujj nañu ko tëj démb lañu ko daal di waaw ci mbirum otobaak yi ni mel voilà ñu ko doon tuumaal ne moom aw baaba Thiam moo ko luwee lànk bañ a fay xaalis alors que c'était le contraire maanaam euh, aw baaba lañu tooñoon moom mi ñu tooñoon nag mujj na yoon jox na ko dëgg ba waa ji euh, ma foofu foofulee ñu daal di euh, coffre jamono jile dinañ ci gën a yaatal Belia sa jàngat ci vidéo bi ñu seetaan du ma dañ nag ci di ko wax ki doon wax joxuñu ko benn importance ay waxam amul benn importance c'est juste que euh, ñun am nañu sañ-sañu nag euh, wekki wala ñu daaj am nañ sañ-sañ boobu maanaam wekki lu lu baax ñu saxal ko lu baaxul ñu ne lii baaxul nañ ko nañ ko dindi ban jàngat ngay def ci vidéo bi. waaw Alioune Badara xam nga Guy mari Sagna dafay génn démb Alioune Badara wax ni euh, li nga xamante ni moom lañ nar a toppee ku diffamé maanaam loi bi tënk diffamation dañ ko war a tegg ci réew mi ñu dindi ko ci wàllu code pénal bi ak yooyu daal. waaw xam nga da ko da ko sabablu mu dégg ci lu nekk mais Alioune Badara avec ça bu ñu dindee loolu lii day continuer. waa ah, dana raw de kon. ba Badara bis bu ñu dindee loi boobu ma su ma neexee laay val Pawlish waxu lu ma saf te boobaa du mujj fenn dafa am yoo xam dañoo naïf tey loo wax ci nit ki ñu gëm ko. lii moom boo boo waxee mu ne la diffamation du ma ko def. li ma ciy wax mooy li ma ciy wax Alioune Badara mooy. yaa awa jéey li ñuy wax di ko wax di ko wax di ko waxaat man waxuma ko góor kii de mais ku jigéen ki doon wootee di joxe information bi bis bu ñu woowee ku góor ki dina wax ki ko doon woo kan la ñu topp leen ñoom ñaar ñëpp ah. koy woowee. foo ko dul woowee. <laughs> nekkul ci réew mi di wa mais mais mais mais mandat international amul Alioune Badara. Hmm. wala Alioune Badara fii bi ñu fi bëggee jëli Assane Diouf nuñ def. ñëwul ci réew mi. a ah, am nañu ne dañ ko tuumaal terroriste. mais ak lu mu mënti doon Alioune li dafa rek ab gor gor nekk ca te liggéey liggéeyam déggoo ko ci benn coow duggul ci lenn waxaguma ci président Macky Sall si xale bu jigéen bi laay wax ñuy jàpp guddi bëccëg di wax te mësul génn ba tontu. mais xale bu jigéen bi def révélation ba xam nga ne du yaawa jee rek la waxal ñu dañoo cof ci yaawa jee président Macky Sall. Hmm. attaqué na Badou Diawo. fii Badou doomu maam Mbaye maam maam Boy Diawo nee na restaurant bi mu tabax fii Almadi plus de cent millions dépensé na ko ci dañ xool nu mu ko tabaxee nee na oto ya Amadou Sall dawal génnee ko ci réew ma nee na mu ngi parkingu kër Waly balaa ko sekk ci suuf sous terrain bi. Hmm. xale bu jigéen bi ñi ko war a woo dafa bari lii euh, bi dafa gudd. bu ñu tegoon lépp mooy deuxième épisode bi. Hmm? da ngay dégg li muy wax yépp mais xale bu jigéen bi dañoo war a xam kan la na xale bu góor bi mi ngi tudd turam ndax kii sénégalaise la olof bu leer naññ lay wax ba pare naan ay assassiné nee na Marème Faye Sall dafa naroon assassiné kii di eh, yaawa jee rey nit yow nga ko mën a tuumal sa moroomu jullit réew mi ci lan lañ ne. ci lan lañ jëm ba pare commentaire yi nag. am na am na keneen ku ko jël postewaat ko commentaire naan ko xamoon naa ni otom bi muy dawal président ko jël xamoon naa ne appartement président dafa am yoo xamante ne ñeme nañ yàlla goo xamee ñeme yàlla goo xamante ne suba ba léegi ci lañ nekk di commentaire leer na ma ku war a togg añ sax doo togg añ normal ndax jàpp yaaw a indi président Macky Sall jàppal Amadou Sall indi maam euh, Badou Diawa jàppal tamit kii di Waly Balago Seck parking ba xale bu jigéen bi révélation yi mu def dafa doy waar man nag damay wax nit ñi tudd tudd seen tur directement fii ku nekk fa nga nekk mën nañ laa jël indi la ci réew mi buñ la waree àttan normalement. mais diffamation dañ koo war a teggi ci réew mi yow Pa Ousmane gor nga koy tuumal yéen a tuumali. tegoo ko fenn. te dafa am ñoo xam ne dañoo mel ni biliyaar loo wax ci nit ñu gëm ko dàkk laa débat dàkk laa wax te la ñuy wax amaana ne amuñu benn certitude ci li leen si si li ñuy wax. dafa am ñoo xamante ni yàq deru nit daf leen neex lii na dañ koo war a arrêté ku góor ki moom deful yëfi góor góor yàlla dëgg day dugg ci yëfam lu mu neex mais góor yàlla dëgg du toog nga naan diw Karina Karina li jëntiwu leen Marème Faye Sall li jëntiwu leen. kuy euh, président nee na mooy ka amaloon ak doom ak Cheikh Amar wax na ko ci ci audio bi président Macky Sall def na fi lim fiy def 12 ans. waaw pare na dem na yoonam. son excellence Bassirou Diomaye jaaxaat Faye jël na nañ ko bàyyi mu liggéey réew mi war na fay toog cinq ans balaa ñu amaat élection réew mi tal nañ leneen lu dul nekk fii jàppal président Macky Sall indi yaa awa jéey otoom suñu yoon nekku si na am oto cent million deux cent million nit ñaan fi dawal oto quatre cent million gënuñu ko fii nag nañ waxante dëgg Pa Ousmane nañ bàyyi tuumal gor yi ñu fi. xam nga problème mooy ba ba Diomaye yéegee ba léegi vie yi daa wàcc débat yi daa wàcc. <laughs> non nañ waxante dëgg. ba jomaay yéegee ba léegi mook sonko am na ñoo xamante ni billaahi bëgguñu woon sonko falu ak jomaay si la ñuy gën a mën a am fii da nga daan invité nit sax mun la ki nga invité ndax APR la nga ñëw mun la non du ko invité émission ndax du ah, bëri ah. fii waa Pastef la nga ne waa mun la bu ma ko invité mu bëri fii parce que jamono yooyu waa Pastef rek ñooy seetaan léegi nag comme affaire yi jeex na élection yi jeex na léegi du ñu bëgg mu sedd chaque instant il faut ñu wut mu lëx di ko sotti ci ndox mu weex bi loolu rek la c'est des chasseurs de léegi nag sénégalais yi am xel ñoo leen waral dul seetaan bàyyi leen seen ak bi yooyu xam nga seytaane dañ koy wax mais ñii ñooy bare seytaane parce que dañuy dañuy taal réew dañuy taal ay xolu nit dugg ci ay xolu nit wax ci loo xamante ni dara du ci dëgg waaw ci li tubaab def de vrai menteur ñii la noonu muy coow loo xam ne daal euh, comme li may wax rek ba tey dama koy répété ah euh, kii fenc vidéo bi ak kii wax bon parce que booy déglu wax moom déglul euh, kii wax ak dayo bi mu am hmm, ak lan la yàgg wax lan nga yàgg dégg ci moom yooyu yëpp dafa mat nga natt ko euh, méngale la mu wax ak moom miy wax ban façon nit la su boobaa di comprendre lu bari